salaamaaleykum mbokk yi ñu leen nuyu di leen ziar ñëpp kenn ku ne turam ak santam euh, rawatina patriote d'ici d'ailleurs di nuyu aussi askanu tay bi xam ne nii tey jii ñu ngi tëj ñun suñu campagne parce que tey jii la campagne électorale commencé mais en tant que militant militant Pastef en tant que coordonnateur Pastef Taïf dañoo faral di def ay activités sociales jëmale ko ci doo daara yi tey jii nag wax dëgg yàlla su tombé lii ñuy def mu tombé ubbite campagne dañ ci sant yàlla parce que lii ñuy def patriote dañ ñoo jàppale taxaw ñu ba mu réussi tey ji ñu ànd koog nag ay doomi Taïf ku ci mel ni ay sëñ Modou kan ku ci mel ni maam Serigne Sylla ñoom Dame Gueye ak euh, suñu mag faatu Mbaw ak association ànd defar Taïf ñoom ñëpp ñu ngi leen sant seen taxawaay rafet na mais xam ne lii tey su amee rek dañ ciy sant patriote yi parce que nag partout wax dëgg yàlla patriote bi ñu yégee ni rek damay def ay activité sociale dañ maa taxaw jàppale ma ku ci mel ni xol international xure si caam ak ak euh, docteur Sey parce que quoi qu'on puisse dire rek seen taxawaay dama ko gis bu baax a baax a baax a baax ci lii moo xam ni moom lañ fa seen def lii ñuy def nag tey muy tijji de campagne dañoo dëppoo ak réalité dëkk bi c'est-à-dire Taïf daara la daara jooju na xam ne moo sos Taïf moo taxit ñu ne nañ góorgóorlu daal ci ña xam ne nii ay jeunes lañ ña xam ne nii ay mag lañ doon ay kilifa ko ci mel ni suñu soit imam yor fa ay daara di tàggat ndaw ñi di yar nañ ndaw ñi defal ab société ñu ne nañ leen gën a taxaw taxawaay boobu nag yàgg nañ ko def du tey lañ ko mës a def ba tax na tey jii jënd nañ ay eau de javel jënd nañ saabu jënd nañ ay yére jënd nañ ay drap jënd nañ ay piir jënd nañ ay bale jënd nañ ay basang lépp nag pour lan pour taxaw dongo daara yi tey ji incha allah presque douze daara danañ ci bénéficier wu di sant bu baax a baax nag waa Taïf di leen gërëm bu baax a baax di wax rek focus Sonko mooy jamaay jamaay di Sonko peut-être nag yeneen réalité bokkuñ am na ñoo xam ne ña ngay def ay caravane am na ñoo xam ne ña ngay def ay suñu dëkk bi lan moo ko sos mooy diine te Ousmane Sonko dafa wax ne lii ñuy def jaamu yàlla dañuy dañuy dañuy kii dañuy kii dañuy jihaad jihaad nas fi nag soo koy def dafa dëppoo ak diine ko kon nag ñun jaamu yàlla la ñuy def ñu ne kon nag kon diine nañ ko ñogal parce que Ousmane ku ko xam-xam ne président Sonko diine la yëkkati teg ko ci kanamam parce que quoi qu'on puisse dire rek nee na dëkk bi mënuñ ko développer Sénégal mënuñ ko développer te duñ ci teg diine suñu kanam parce que ay référence wërta jot si làmb mais référence dafa war a ñëw ci ay acte mooy si ay jëf léegi aussi mooy activité sociale bi ñuy def président Sonko day wax ne développement day nekk local doo ko nekk national loolu moo tax ñun dëkk bi ñu nekk Taïf mu nekk suñu fierté amuñ leen lu Taïf amuñ lu ko gën a mag amuñ lu ko gën a rëy amuñ ko gën a suufee kon nit ñi def ba ñongal ko rek ci loolu lañ nekk kon nag tey maa ngi wax Sénégal ah ngeen seetaan góorgóorlu gi ñu jot a as néew rek di ko jëmale ci dong daara yi parce que nag sëñ Abdou Khadre doon wax ne xawma jàmbaar kuñ kuñ kuñ dimbale laa xam wax dëgg yàlla borom taf dimbali nañu tey alhamdulilah sëñ Jili maa ngi lay jaar Ndiaye yaa ngi dem maa ngi lay jaar ba alhamdulilah Abdou Khadre ñu ngi jaar alhamdulilah liggéey am na solo waaye nag ñaan waaye nag waaw ñaan ki mën a liggéey bi mën a liggéey day fekk ñu liggéey loola rek ñu liggéey waaw day fekk ñu liggéeyaloo loo yàlla woo ku mu liggéeyaloo ah. euh, Sëñ Tuubaa ku ku mu nar dafay la liggéeyaloo ku mu liggéeyaloo liggéey yi dana yomb ci yow waaw démb ci waxtu yi daanaka tuuti lañ ci teg ñuy dem niveau ci sëñ bi doon ko ziyaara ji ñu itam doon yóbbu suñu sas wi eh, ak itam sukari koor yooyu doon yóbbu ba noppi doon ziyaara ji yàlla sëñ bi waaw yow itam ñu ngi lay sant ndax li nga liggéey ni moom sëñ bi moom moom la sant noonu yëpp dugg nga ci biir sant gi mooy liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci alxuraan ji ci barabu sëñ Bàkki moom muy kaamil alxuraan yi ni nga ko taxawoo ak li nga xam ne itam ñu ngi koy liggéey ci wàllu yëpp rek waaw yéen itam dugg ngeen ci ni ngeen def ci daara ji nii wax nañ ma ko ñu bëri wax nañ ma ko waaw yow Diop mi nga di Diop Taïf lañ lay waaw sëñ Mohamed ak ñii nga àndal yal na yàlla nangul liggéey bi te itam ñii nga ki nga xam ne moom geen di jàppale muy sëñ Ousmane Sonko waaw Sonko Sonko borom leer gi su nuuray yal na ko yàlla defal moom it su nuuray la la sax yàlla da ko jo yéntu bi sax da ko mayoon Roqya mu nelaw bi mu nelawee mu jox ko um mu nelawaat hmm. mu ne law indi saalisan hmm. mu wax ko ne law indi saalisan la sawañ naaha lakka hmm. bu ñu amaatoon kenn ñetteel dañ la may ñetteel waaye ñaari yi ca yam mën a yem moom suñu man mii rek moo fi mos a di wut réew yor ñaari soxna waaye nag moo war a dimbali waa mi loolu moom yàlla def na loolu moom ñi am gis gi yëpp gisoon nañ ne jëmm ji am na kilifa gu mos a toog ne ñaari nit ñëw kenn ki bi mu ko waxee Karim Wade la waaye bi Karim ñëwee dafa gedd dem mu des ku ñuul ki ku ñuul ki mii moo war a dimbali réew mi waaw ku fi teg rek man sa wax naa ko ku mag ci réew mi wax nga xam dama ko wax audio yónnee ko ma ne ko yónneewaat ko si usine ne ko usine seere nga ci muy sama rak ne ko allah kii de waxuma ne mooy doon président de waaye ku mu fi samp doo fi taxaw incha allah jagu réew mi sëñ Cheikh Gaynde Fatma waxoon na ko si Anta ji waxoo na ko kon loole moo yegg si nii yéen nag yéen ndaw yi eh, jamono ji yàlla moo def bu naree jag rek ndaw yi ñooy jóg am na ñu ñuy wax asabu kaaf yi defe naa da ngeen leen dégg ñooñu dund na ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at ci atu nawet atu gori goron bi mooy nekk euh, ñetti téeméeri at mooy ci moo ne ci alxuraan ñooñu noonu rek ñoom ngeen wundaat jamono ji ndaw yi ngir jagalaat réew mi yàlla def loolu nag moom yàlla def na ko ndax mag ñi ñaan nañ ko ba mu sotti jot na li fi waroon a euh, tuur ci deret léegi rek ci tusubaar waxtaanu yàlla wu sori la ñuy waxtaan maag euh, xale yi ba man ko mujjee ci Ousmane Sonko ma ne leen deret yi tuuru ni ñoo doon jënd réew mi defe naa am na ku ko waxoon ko ku am solo muy Sidi Lamine Niass loolu moom ko doon wëndu am na lu ko ci yàlla woon waaw moo xam ne deret moo ko Cheikh Sëñ Cheikh Tidiane si sama bàyyi bopp mooy waxoon na ko fi nga xaritu sama bàyyi la woon Sëñ Cheikh Tidiane waaw waaw waaw sama bàyyi moo xadamuti yàlla la doonoon doo ko doon murit te xaritu Sëñ Cheikh loolu la woon muy ku yàlla may xam ak ak ak ak ak ak xikma muy Sëñ Cheikh Tidiane waxoon na réew mi buñ ko sangul ko sang ak deret deret ji waroon a tuuru nii donte ñeneen ñoo leen rey waaye ñeneen doon rey ñoom ñu itam ñu ngi ci biir bàmmeel waaye ñu ñu sahid lañu jihaad jihaad lañ ñu ay mujaahidoona lañ ñu sahid lañ am na sax ñuy wax naan ku ci dee da xar woy waaye loolu amul ndax réew mi fii ñu toll nii dañ ko war a dañ ko war a jënd dafam loo xam ne da ngay da jënd gi nga carte li muy def noonu la deret yi ñi ñuy def réew mi doog a mën a baax ñii fi newoon di lekk àll réew di naan deret ci gor ñi képp ku fi toog bëgg dara ñu ñu ñu gàllankoor la ku mës a toog gis nga Mamadou Dia lii la doon indi waaye boobu mbooloo boobu waxtu wa jotagul ñu ñu faagaagal ko yàqal ko bi mu génnee dafa wax ne moom leen rek moo ko naqari mooy defoon na ne su génnee dana fekk réew mi jag te mu génn gis ne réew mi jag rek mooy naqar waaye li ko def yëpp dara naqar fii ñu toll nii eh, kii fi nekk nii di fi war a jógee boo gisee eh, jëmm jii ci taay moo ko moo ko sampoon ba ba dénk ko sëñ wax loola wax ñu ko ñun ñii wax ñu ko ñun ñii yàlla dafa def bi muy jot ci réew mi amul benn coono te arab day wax ne an nafru baadal kaddi alquran dafa wax ne fa inna ma al usri yusra inna ma al usri yusra te alquran bu bu bu baamtoo dara rek loolu lu nekk la alquran lépp dëgg la ndax ñi gën a am xam-xam seen xam-xam yi ci tubaab yi sax ñu buñ ko génnee loolu leen di tuubloo muy alquran fa inna ma al usri inna ma al usri dellu wax ne saycalu laahu baadal usri yusra amul dara looy am te sonn loo am ko boo ko amee doo ko jëriñoo koo gis mu am dara loo xam ne sonn ci ñaar day fekk la muy wut jotagul wala bu ko amee du ko moom moom fokk da koy keneen doon ko Seydou Law léegi nag moom Sonko bi gis nga tuumaal tuumaal li gën a bon alxuraan génn kilifa gu mag toog na ci télé bi mu ñoom ñu xam nañ kilifa gi du ma ko wax xaa xam nañ ko ni naa leen tey jii rek tey saa lii naa la ko fii bi ñu waaj julli bi ñu toogee di li ma ko wéddee mooy dafa wax dañ ko laaj ci télé mu ne moom du wax ci lii dégg nga alxuraan daf ne law laa sami'tumuhu sanal mu'minuuna wal mu'minaatu bi anfusihim xayran waxool xasa bii daf ne xasa ifkun xadimun bi mubinun bi mun xasa ifkun azimun surtout Noor wax na ko ñaari yoon bañ tuumaalee li ñu tuumaal Sonko tuumaal nañ ko soxna si yonent bi sax muy Aysa sayyidatna Aysa mi nga xam ne yonent bi noonu na Aysa gannaawam fukki at ak juróom-ñett dongalaam bi yonent bi nelaw waaye daganul nit sax bëgg na ko ku ñuy wax talaatu ibnu Ubaydillah talaatu ibnu Ubaydillah moomu moom la ñuy moom la ñuy wax talha dafa am benn talxatu ibnu Ubaydillah ñaar lañ kenn ki bëgg yonent bi di saaba kenn ki di kàccoor kàccoor bi nag dafa toog gis Aysa ne yént bi da daan wax ne xosoo nis fa diina ko maanaa si xumeera jël leen seen genn daan diina genn diina yëpp seen genn wàll diina yëpp ci ndaw su tuuti su xees si muy Aysa da ko bëggoon nag lool da ko daan di faw ak moom dégg nga muy saydat na Aysa moom nag mu xool ko daal di ne kii de bu yént bi faatoon ma ma takk ko loolu rek yàlla wax na ne eh, wa aswaajuhu ummahaatukum nee na soxnaa yént bi suñ ndey la fu ne nii kenn mënut a denc ndey ju la jur fi nga génnee kenn mënu koo denc ku ko tudd sax nga nga dal ci kaw noonu la soxna yonent bi dem am na sa euh, laajte bu ñuy laajte loo xam ne borom xam-xam laajte su ne buñ ko laajee ci biir mbooloo ñii nii man ngeen ko bañ a xam dañuy wax ne bakkaar yu mag yëpp def nañ ko ba mu jeex ba mu des benn bi gën a garaaw loolu mooy denc soxna yonent bi yàlla doon na kenn mosu koo def denc soxna yonent bi ci bakkaar yu mag yi la alxuraan na ko tere sëy euh, talaatu moom loolu la waxoon ne da da da koy da day denc ndey Aysa Seydina Aysa boo yonent bi nelawee alxuraan dal wàcc ne bu ko kenn xalaatee ndax seeni soxna ay soxna yonent bi seeni ndey lañ bi yonent bi saa salaam di ko di ko di ko di ko labat ñu ko Seydina Abubakar daf ko ne ko soo ko soo ko soo bëggee rek soo gërëmee ñeel na la fu ne ni boo yoon sa doom bu jigéen nit bëgg nga ne ko boo ko bëggee si xutba yi ñu bëri xam nañ loolu islam dafa bëri ay sew fu ne boo gisee ne ko soo ko bëggee may naa la ko boo ko bëggee bëgg ko rek takk rek sëy bi dugg na waaw dañ ko dañ koy saayare rek xutba ko noonu waaye sëy bi dugg na ba ko yontu bi saasam xoolee dal di gis ko bëgg ko da dal di ko laal ni mu ko la mu koy dal di wax xale la dal di wax waxoo yu tegginu mu ree si ñëw ci bàyyi na kii yang ma kii góor gi ba pare nanga muy laal sama yaram mu ne ko sa sa jëkkër la de may naa la ko dama ko ne boo gërëmee te gërëm na kon daal di ko xutba waaye mu nekk xale bu tuuti juróom-benni at la am ñu bàyyi ko ba am juróom-ñeenti at mu dem kër yonent bi defaat fa juróom-ñeenti at yént bi saa sam dem rafetul ala moom fukki at ak juróom-ñett fu ne fukki at ak juróom-ñett yooyu ba bi muy génn àdduna dem am 63 ans amul benn nit bu ko mos a denc kenn mosu koo ñemee denc te loolu la ko yént bi waxoon moom mooma lañ tumaaloon lañ ko tumaaloon loolu la aji saar mi seytaane si ñëw dégg nga wax ne eh, Sonko wax ci lu bari ñëpp ñi war a alku nag alku nañ ci li zalika li halika man halaka an bayyina wa yuhyi man hayya an bayyina yàlla dafa bëgg yëkkati ñi mu yëkkati ñiy daan war a daan réew mi fu ne ñu ñu fi newoon seytaane yeeg lekkati ribaay yeeg naankati deret yi yëpp dañuy incha allah dañuy daanu su ko defee gune yi ak mag ñu baax ñi bëgg lu baax ne fi di liggéeyal di jaamu yàlla di liggéeyal yàlla lii ma wax ni lii ma wax ni sëriñ boo dem tegal ko li ma wax ni mu weddi ci dara ndax ndax man neexuma xel waaye bi ma juddoo am juróom-ñaari at laa dal jàng ba fi ma toll nii ba ñu toll nii ngi jàng kon awma xam-xam waaye eh, duuma ab jaahil du dëgg kon loolu moo ci ne yéen nag góorgóorlu leen si Ousmane mii ngeen jàppale ko li wér mooy muy jomaay ak yow mi yéen a ci dégg nga waaw Diomaye yorut dara ñàkkut dara kan ànd na Ousmane fii ñu toll nii kii lii moo xam ne ci ci ci télé laa ko na yéen a ngi koy ne bëgg ngaa daanu demal nga ne yaa ngi jéem a dugg ci tànk Ousmane Sonko yi da nga daanu ndax li wér mooy Ousmane Sonko am na sax samaay bi jur mo wax ko tey wax naa ko tey ne naa kii di yaayam liggéey na ba muy ba muy doog a tàmbali ma ne ko du ndeem moo ko liggéey kii li mu am du lu ndey di liggéey yàlla nag day am na ku laajoon suñu baara mu suñ tuba ne ko waa ñaar barum lay ndey ju liggéey ak ak ku borom day ju liggéey ak ku wëli ñaanal ku ci ku ci ëpp sens sëñ baara tontu ko lu gàtt te yéeme surtout ndoo ne ko ku amoon day ju liggéey du daje wëli yu ko ñaanal kon ne ndeem mënta ñàkk a liggéey waaye nag liggéeyut lii nag ndax ñuy suñ ndey ñoo gën a sonn ndeem man sama daan sëgg nii li ma wax ne ci teel laa ko sama daan sëgg sama baay di ko dóor ba sonn te fi ñu toll nii toujours ma mer sama doom yi ne maa leen gën dee waaye moom moom itam du soxna jaara de du dëgg soxna jaara asma lii may net wax nii yëpp dama ko doon netti du daa kon am na am na ay étape la rek mag ñoo jaamu yàlla ñaan lii bi nga ko ñaanee liggéey bu waxtu jotee ku duggoon fii sax mën nga ko for moom mii li nga koy li nga xamee ne cëram la fo boo xoolee Macky Sall mi bi muy doon président sonnu ci loolu laa doon wax sax te fàtte buntu ba ma indiwaale loolu fu ne nii nguur gu yomb la gu jàppandi fu ne politique gu sax ñetti at dal di dal di bi ñu dee ba Abdoulaye di nar ko sonal Abdoulaye di jëmbala ju am sens ju am wërsëg waaye mënu fi indi njub ndax màgget la moom gune gi ji doon gannaaw 61 ndax mu ngi ji mu jiitu 1961 euh, ci ci mujj ci décembre bi defe naa dégg nga daanaka man mi ak ma ay maas lañ rek waaye bi mu fi ñëwee ci andiwul li taxoon mu andi ko fi sëñ Cheikh waxoon na ko Gaynde Fatma noonu bu ñëwee ci andiwul luy defar réew mi defar réew ci moom lay jàllale ko te sëñ Cheikh euh, sëñ Tuubaa noonu maa ngi nii toog te maa ngi rëy itam sëñ sëñ Tuubaa la loolu moom ñëpp nangu doomi sëñ Tuubaa sax nangul nañ ko kon loolu moo tax fu mu ne nii yéen itam li ngeen di def ni liggéeyal yàlla la boo xam ne wax fu la boo xam ne dara mel ko muy muy liggéey ci alxuraan ak liggéey ci ndaw yi ak defar ndaw yi ak jàppale leen ñu ngi leen di sant di leen gërëm lii dañ ko ci doon jàllale di soññ nii maa ngi jàll message bu ñëpp gën cee góorgóorlu ne rek comme comme ñu ngi ubbi biig ñu ngi ubbi campagne bi yéen itam seen campagne yéen ko njëkk a indi fii ci daara sëñ Mbàkke Mohamed ji jii sëñ mbàkki Mohamed bëgg ko dama wax ne ku bàyyi Cheikh Khadim Touba bàyyi Cheikh Moussa Touba bàyyi sëñ Cheikh Touba sëñ Mohamed ñor na la démb rek maa ngi ko wax si si Moussa ñu ngi ciy waxtaan kon du ñu ay waa waaye li ñu indi Taïf mooy mooy la arab boo xam ne wa maa xubbu diyaar yi saxaf na xal bi wala ki hubbu man sakana diyaar ba mu bëggee ndaw si te bëgg ko ba bu ñëwee buntu kër ndaw si lay nelawee di fi ñu ne ko gi dafa ne bëgguma kër gi ki dëkkee kër gi laa bëgg ñii itam jëmm bi bu newoon Taïf tey ah kon ñu xam ne moom rek di Taïf waaw jërë ngeen jëf waaw kontaan nañ baax jërë ngeen jëf waaw ñu ndaw yi yëpp daal ñu ñu waaw waaw ah, ah, ah? ñu ñu ngi joxe ñëpp daal ñu góorgóorlu ci lii ab yeen la ñaari semaine yàggul nu ñëpp góorgóorlu jàppale Jomaay eh, mi nga xam ne moom la Sonko teg jàppale ko ndax moom doo jàppale Jomaay sant eh, ku sant Faye waaye yaa ngi jàppale Ousmane Sonko yaa ngi jàppale réew yëpp mm. ndaw yi de a ñi nga xam ne ñoo ne ci kaso gi ak ñi jóg a génne fitna yëpp fitna yooyu mooy coono bi nga war a jënd réew mi ak deret yi kon jënd na réew mi ba pare li ci des liggéey Sëñ Tuubaa bi mu liggéey te xam ne ñëpp xaj nañ ci yal na yal na yenu réew mi yenuwaale ñu ci ba li ci des yëpp nekk jàmm jàmm ak tawfiq ba bu ci fitna jógaat benn fitna bu mu ci jogaat ba ba ki yore man ko joxe ci jàmm ñu yor ko ci jàmm te benn fitna bu ci am jafe-jafe yi jeex ñu mën a liggéeyal liggéeyal jaami yàlla yi mën a liggéeyal réew mi mën a liggéeyal seen tubaab wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërë ngeen bi naa wax xam naa ko am naa seen xatam ëpp billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim di nuyu mbokki jullit yëkkati ay cant ay kàddu yu cant ay kàddu yu mbégte si jëm yi ñu toogal di suñ Moustapha Imam di wax ne lii lii ñu def tey dafa nekk suñu warteef farata la si mooy dëkk bi bi ñu ci dëkkee daanaka Taïf defal ñu lépp day day dafa war a dafa war a dafa war si kenn ku nekk si ñun si doomu Taïf nga xool yow noo mën a jàppee ci développement am ñun nag développement Taïf dafay dañoo jàpp ne farata ji mooy diine. parce que fii moom ay daara la ki ko sos moom mi ay waajuram bokkal ñi sos bërëb bii ñu toog nii daara jàngale xam-xam tasaare ko yar jikko te soo nee defar jikko rek yaa ngi defar societé moom lan maam nekkoon te la nekk kon ku ñëw fi nga ko fekkit da nga ko fekk si cosaanam rek kon di la ñaanal yàlla yàggal taxawaay bi yàggal wér gi ak mën gi mébét yi nga am xam nañ ne mébét mébét kawe nga am ci dëkk bi yàlla na ci borom sotti nga fekk lépp nag nga xam ne ñun moom mooy li ma yàgg wax rek ñun jëruñ sant parce que farata la ñuy def lii dafa bokk ci lenn si jaamu yàlla yi jaamu yàlla nag soo koy def daanaka kenn du la fekk ngay julli mu lay sant wala di la gërëm parce que li ñuy def sa bopp nga koy defal waaye liñ ñi ànd liggéey bi te mu yàgg lool ba ñuy bañ jàppee baaw mi di xool lu ñongal dëkk bi parce que yemuñ ci lii yemuñ ci affaire daara ñu ngi ci affaire affaire environnement mooy jëmbat ay garab même ndog yi aussi dañuy koor gi dañuy togg ay ndog yóbbul ci daara yi di dimbali nit ñi xam ne nii seen loxo jur seen ginnaaw ñu fajoo wala ñu xam ne nii am nañ jafe-jafe ci dund ñu leen di jàppale ci sutura te bëgguñ kenn xam ko loolu du ñun dañoo ci ñun du ñun ñoo waral loolu waaye ay ñoom ñu mel ne ay ñoom Dame Guèye ñi ak surtout maam Serigne si li muy nekk sama ginnaaw ak ñoom Fatou Mbow taxawaay bi moom daanaka doomu tay fi ñoo ñoo ñoo ñoo am seen taxawaay mat ak euh, sëñ Modou Kane lépp lu ñuy def it ñoom sutura lañ ko defee souvent dañuy wax na bu bu buñ bëgg sax ma leen tudd waaye xam nga nit su defee dara nga war ko jaajëfal wala nit ñi di la tudd yow war ngaa wax nit ñi ne yow doo ci dara ci mbir mi daanaka dañoo nekk si kanam rek waaye ñi ñi pousse pour oto bi tàkk ñoo ëpp ñoo ëpp doole ñoo ñoo jara sax gërëm kon ñooñu la ñuy gërëm waaye di sant aussi parce que liggéey bi ren ji dacee dafa nekk ak tawféex lool parce que lépp lu ñaan def benn def nañ ko fukk te loolu ay nit la ñu xam ni aussi xamuñ Taïf wala dégg nañ Taïf wala suñu jëmm ñoo tax ñu ci ñu ci ñu ciy taxaw taxawaay boobu ñooñu dañ leen sant surtout maam mooy parce que maam daf ma koy wax léegi ne ma fàtte waa Dakar mooy commerçant yi nekk jaakir fëgg njaay yi nekk Colobane ak commerçant yi nekk biir Sandaga Petersen parce que ñoom it dañoo bokk bëgg-bëgg bokk bëgg-bëgg politique muy waa Pastef yi parce que souvent li ci am lépp ren ji daanaka xaaj bi lépp ñooma maam sëriñ ñu mën na ko seede dañ may gis sama maam sëriñ ñu ànd ñu wooma Diop lu ngeen def nangam ñu ne dañuy dajale pour lu yóbbu daara yi jëm tayef ñu joxe seen xaalis kon ñoom xoolutuñ léegi sax daara yi la ñuy defal waaye mbokk bëgg-bëgg yi ñu bokk muy passif daanaka moo tax ñu agir même waa diaspora bi wax dëgg yàlla ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen jaajëfal parce que lii ñu tàmbali tey jii dañoo gëm ne ak jaamu yàlla di ñaan aussi liñ nekk muy yëngatu ci politique bi yàlla ci am ndam yàlla jomaay nekk président de la république ñu loolu la ñuy yàlla na ko suñu def mën na ko yàlla ko def ñu dugg seeg jàmm génn seeg jàmm di sant ñëpp nag di sant doomu Taïf mais di sant kullu patriote surtout maa ngi nekk diaspora bi ñu leen jaajëfal baax a baax a baax. waa foofu lañ yemale kàddu yi rek. baax sa taxawaay ndax euh, rôle yi nga yor ci dëkk bi dafa bëri euh, ndaw yi dëkk bépp te jour ñu dégg ni nga leen di soññee ak di leen jàngal diine ak lu bari loo xam def ko ci dëkk bi te lu bëree bëree bari ñu ñi nga xam ne jaar nañ ci Taïf gii wax dëgg xam nañ ci lu bëri. Baara nag mënuñu ko ñàkk sant ndax euh, jot bariwul te Dakar ku ne xam ne xat na waaye Taïf dafa am ay nit ñoo xamante ni wax dëgg yàlla Taïf ci boppam da leen ndamoo ah ndax euh, nit ki dafa dañu wax ne euh, bul da ngay lijjanti ba def sa dëkk loo xamante ni dañ leen ndamoo ndax ay at ci ginnaaw Baara gisuñu ko liggéey bi xawoon naa taxawandi ndax li nga xam ne moom mooy collecté li mu def li mu def maanaam jot temps bi mu koy jox wax dëgg yàlla ñu ñëpp ñoo bokk liggéey bi waaye yitte ji mu ko jox ñun xam nañ ne moo ñu ci ëpp yitte fuuf donte sax yéene yi bëri na ndax lu taayif moom euh, dañoo juddu suñuy waajur ku ma ne Baye Fallou Gueye suñu masaan waxtaan dañuy wax yu bëri yoo xam ne ci dëkk bi ànd nañ fa moom ak Fatou Mbaw daan ci waxtaan ñu nekk ñoo xam te ay jàmbaar lañ waaye may soññaat waa taayif di leen wax ne liggéey bii de Mbàkke lépp wax dëgg yàlla sa kanam lañ ko doon defee waaye ñi ma gis ñu ci taxaw di ko def ñëpp ak yokkute laa gis ñoom amul kenn koo xam ne bañ koy doog a tàmbali mooy ndogu yaag ñoom gaas ak fañ tàmbalee fañ jaar lépp ba léegi nii ci tay ñëpp ñoo xamante ni jàppoon nañ ci wax dëgg yàlla ay yokk laa te mébét mi nag dafa yaatu woon lool lool sax ndax liñ bëggoon dëgg te gars yi sax am na wax dëgg comme ni mu ko waxee am ñoo xamante ni gisuñu leen fii waaye bëri na ay dossiers yoo xamante ni day nekk ci eh, feneen waaye doomu taay fi ñoom ñoo koy lijjanti waaw am na xéewal goo xamante ni daal yaakaar naa ne ñaan la goo xam ne suñu bàkk sonaloo defoon na ko ci ndaw ñi wala yaakaar man wax dëgg yàlla ñun gis nañ ko ci ñun ndoxin bi nga xam ne moom lañ am ndax lu mel nii buñ ko waxee ñëpp dañ ciy taxawandoo muy ay liggéey yu bëri yoo xamante lii nag firnde la ci waaw biñu itamit nit ñi di leen wax comme biñu demee di forcé wax dëgg yàlla ay ñu bëri ñoo xamante ni romb bu ñu rombee dañuy génn xaalis joxe ko ma ko ah ma ne bi ci lii laa ko gisee muy pas-pas boo xamante moom lañ am ñoom waa Pastef ndax loolu nit bu la defalee lu baax da nga koy sant ci lim la defal ndax ay nit bu ñu àndee ñu ne bokk nga ci di ñu génne seen xaalis di ko joxe wax dëgg yàlla suñu ñëwee loolu dinañ ko wax fii te jëmmam ji wax dëgg yàlla moo tax te moom it mu nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla taayif ci boppam moom daf koy ndamoo moom ni mu koy waxee da koo gëm te da koy dund la waaw moo tax man dama ciy soññee képp koo xamante ni taayif nga dëkk nga xam ne euh, taayif ku fi dëkk waroo yaafus ndax suñ Mbàkke Mouhamed defal nañu lépp buñ fu waay génn rek man gis naa ñoo xam ay boutique yoo seen bopp taayif ko tudde rek ak kawe rek la ñu am waaw loolu moom xéwal gu mag a mag la waaw wax na yàlla sant gërëm nañ bu baax baax nag waaw sant nañ baax a baax di leen gërëm bu baax jërëjëf Mbacke jërëjëf eh, na am na si ñoo xam ne moom moom faaw nga faaw nga ñaanal leen ku ci mel ni docteur Cissé mooy médecin personnel Ousmane Sonko parce que moom damaa xam yéene ji am ci Taïf moom dafa ma dafa am yéene jàppale moom mais dafa am yéene ci parce que euh, li président Sonko di wax naan développement bala moo nekk national day nekk local président dafa mën wax ne ma man bala maay gëm ni yéen da ngeen bëgg réew mooy dëkk yi ngeen dëkk ngeen jéem ko suqali su kenn ku nekk suqalee fa nga dëkk dëkk bi day avancé Sénégal day avancé loolu moo nekk defal ma xam day nekk local doog a dem national mais am ay nit ñoo xam ne laal maam Serigne mi ko ci mel ne xure si caam international basketteur jour bi may jënd saabu yi damaa jekk ji mu woo ma téléphone may waxtaan moom ma ko damay jënd ay saabu pour dong daaree rek mu ne foo nekk ma ne ko maa ngi maa ngi kolobaan mu ne naam ku ma la boole xuddoos yëkkati cent mille francs jox ko xuddoos xuddoos woo ma moo tegtal fu ma nekk maa ngi seb nekk laal maa ngi mii maag booy njaay mii ñoo àndoon keroog fa la ñu fekk laal njaay mii keroog fa la ñu fekk ñu génn lépp yóbbu kër sëñ bi même docteur Cissé mooy médecin personnel Ousmane Sonko moom it bi ko xuddoos wooyee rek sur le coup la génnee xéeram joxe pare même itam laayal sikaab même mooy mu ñëwoon tey jii ànd ak ay médecin ñu def faj dongee gratuite mais xam nga campagne bi tey la commencé loolu moo moo ko entravé mais xamal daal muy saabu yeeg omo yeeg ak lépp lu ñu mën di jënd ci ay basang ak bale xam ne am na ay nit ñoo xam ne moom wax dëgg yàlla am nañ mébé lool sëñ Mourou Kane nag na nga ko ñaanal moom si daara la bokk sax maa maa ngi moom yem mais jàmbaar lool ci liggéey sëñ Mourou Kane maam Serigne mi ak ñoom imaam mi ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ waaw comme ni la ko maam Serigne waxee rek kër gi ne kër gi ñu jógee nii muy kër Aida moom lépp fa la commencé waaw bañ bañ yoru woon dara di ko daanu fa lañ tàmbalee ba tey yàlla def lii ñuy def mu am ak toofeen ne ci at deuxième année bañ ko bañ ko defaatee fii lañ toog maa ngi yow nga lii de feeg yéen ci day taw feex te da ngeen avancé rek loolu nag moom kàddu lay xam du ma ko fàtte mukk ñun amuñ leen luñ mën a lu lii tayif rek lañ am ñun parce que bu nekkee ay xat-xat ci xam dëgg-dëgg nekk tayif am na am na bët buñ ñu fuñ ñu tegoon am na benn bët bu ñu daa xoolee loolu tax damay wax rek nga ñaanal ndaw ñi parce que ndaw ñi de ku ma woo téléphone laa def ñëw li ngeen jàpp ci liggéey nga boobu ba léegi ñu ngi soo ba léegi ñu ngi tas nekk di organiser di di di programme loo xam ne nii wax dëgg yàlla soo neex ñu toog seen kër ñu am mébét lañ ci tey aussi nga ñaan leen ñoom ñëpp rek yàlla defu leen taw tawféex waaw ak site IATV IATV mooy sama xarit yi jóge tuuba nga def nga def nga ñaan li bañ am télé rek waaw mooy Fall waaw mooy Sëñ Fall moo nekk ne la yor yor kawra bi <laughs> waaw sama waay la moom moom moom IATV waaw nga def si ñaan suñ mu asu Mbàkke waa ñu baaxal nag moom it dafa amoon tey programme mais dana dama koy bàyyi parce que yow kenn nga ci man waaw xam nga ñëpp xam nañu campagne bi tey kenn amul jot waaw nga ñaanal nga ñaanal leen daal yàlla def ci tawfeex site bi mu avancé lool nag ba nekk tele sama xarit la waaw te dara du ma du ma laaj dara du ma laaj xaalis duma laaj dara activité mu am su ma ko waxee day ñëw dagg lépp mu ñëw waaye nga ñaanal ñëpp rek gaas boobu ñëpp nga ñaanal leen maam sëriñ ñi moom xam nga benn lam mënut a yëngatu lii may def nii moom ak sëñ Mourkat dañ cee nekk jàmbaar moom dama koy woo ne ko saa yi nañ dem maajaale ji day bàyyi lim def it temps amul day dagg yëpp ñu ñu ànd yàlla xam ne loolu loolu ak sant la te nit ñi xamal laa sëñ bi ndaw ñi ñoom ñi ñëpp dañoo am yéene ci yow yéene bu yéene yéene bu rëy la la ndaw yi dëkk bi am ci yow yàlla xam ne loolu loo tax loo nga ñaan leen ba xam naa sa yaa ngi ci leen ñaanal rek xam naa ñuy seet yeneen dong yeneen daara yi rek waaw nga defal ñu tawfeex rek gaza lépp lu ñuy séddale loolu nga mën a wax naa mujjee am lépp lu may séddale ci dëkk bi fekkee dong daara yi dafa ma na ñëpp am fii mujjee fi kon lii ñuy sédd nii moom xoolu ci am am bi waaye daa bëgg lépp tawfeex rek waaw yàgg naa ko jox dara mu woo ma ne ma diw de ngeen ko fàtte daane waaye jël naa ko li ma leen jox jox naa ko moom noonu la taxawee lenn lenn lu damay toog moom nii du bëgg du sëñ Moussa loolu la moom roykaay la du jëw kenn du tudd kenn fu nit nekkul du ko fa tudd man ma ko seetlu ci côté boobu loolu na ak mooy ak maanu waaw lu toog naa fii ba tàyyi nit ñëw dis ko ay soxlaam mu yëkkati jox la mu ko mën te yàlla xam ne man xam naa lim mu jox moo ko gën a yeeyoo waaw moom wax dëgg yàlla sëñ ñu boole gi ñu boole réccuñ ko di la nga yàgg fi Mbàkke Ah, waaw waaw waaw. kon dëkk bi ñoo ko yàgg def. jërëjëf waaye Siib nag moom nekk suñu wël nekk suñu lépp. waaw waaw. mu yëngu ci lii ñu ne naan dañ ciy dañ ci jéem a jàpp rek. waaw na jërëjëf après. jërëjëf toog waxtaan ñu xool lan lañ ci gën a jàppale. jërëjëf jërëjëf. waaw ñun moom mënuñ koo fay. waaw jërëjëf lépp lépp daal li ngeen dugg na ba noppi. moom daal li ngeen bëgg daal mu am na ba noppi. waaw li ngeen bëgg daal mu am na ba noppi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf ñaanal suñu kàntaam nag. <laughs> mais ñaanal ko dugg biir palais. jomaay daal jomaay daal moom. Euh. bu soobee sëñ dana dégg bii moom. waaw dana dégg bii moom bu soobee yàlla dana dégg bii moom. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. bonsoir. Hmm. Ah, hmm. waaw. asalaamaaleykum wa rahmatulah kon ñu ngi ñu ngi leen nuyu bu baax di leen sant ci di jiital ci nuyoo bi si kilifa gu baax gi mooy suñu Mamour Mbacke. moom suñu maxtaar moom suñu Mamor borom saam di rafetlu bu baax teewaay bi ak jëf ju rafet ju kawe ji mu mel ne comme ni ko Baye Sidi waxee mel ne taxawaay bi yàgg na lool te diggante bi nga fi bi nga fi xawee absenté nekkoon ci ay diggante rek diggante boobu itam mel na ne daara jooyoon na ko daal xale yi mel na ne manqué woon nga leen lool kon ñëwaat gi nga ñëwaat seen biir ba àndaat ak ñi nga àndal liggéey bi ba di yóbbuwaat xéwal yu mel ni ci daara yi loolu amaan nañ ci mbégte sëriñu daara yi bëgg nañ ci xol bi nga xam ne seen xol sedd gi mu sedd ci yow rek ak ñi nga àndal liggéey bi loolu rek mooy moom moo tax ñu leen di eh, wax ne liggéey bi incha allah day gën a jëm ci kanam day gën a mat waaye dara du ci wàññeeku incha allah Baye Sidi nag mu ngi leen di beral ak cantuk boppam moom la ma doon wax léegi mu ngi leen sant sant goo xam ne am na fu mu tàmbalee am fu mu yem bu rafet bii ngeen am ci daara yi am ko ci donga yi. mais liggéey moom suñu wóorukan mii. waaw ak moom sëriñ la war a sant. waaw taxaw liggéey bi nag. waaw waaw ñun dara. waaw moom daam waaw moom la sant waa tey gépp. waaw ñi ngeen mais rawatina ñii ñii nii daam ngay. waaw suñu wóorukan ak ak maam sëriñ si la. waaw ngeen waaw ñi ngeen ko àndal ñëpp rek ñu ngi leen di sant den gërëm. te di leen ñaanal mu ngi leen di ñaanal bu baax ci barke bi alxuraan bi tax ngeen liggéey mm-hmm. suñu borom gën leen taxaw gën a jàppandal liggéey bi ngeen gën koo man mm-hmm. waaye ngeen gën a nekk ca kaw lépp loo xamante ne nii itam euh, lu baax lu ci lu baax lay juddoo rek suñu borom defal leen ko wépp yiw rek mu ngi leen koy ñaanal bu baax di leen sant sant goo xam ne waaw waaw ñu ngi kon xam naa foofu la ñuy yemale kàddu yi rek allah ok bu ko defee suñ bi defaat ñaan alhamdulilah alhamdulilah tabarikala Eh, ñu jottaliwaat sant ñi <laughs> alhamdulilah yeeg na siratun sirat yéen a jëm ni si jëm barke Xadim Rasul ñoom maam Serigne waaw waaw ñu ne waaw ñoom sëñ Modou Kane ak ñoom <laughs> daam moom dëgg la ñoom yàgg nañ fee ñëw indi mel nii dëgg la dëgg la dëgg la ñaan rek yal na yàlla barkeel liggéey bi li ngeen di jublu suñu borom defee ko ci barke yonent sallallahu alayhi wasallam bari xatima rasul alhamdulilah jërëjëf boo xam si biir doomi dëkk bi te léppam maanaam njëriñal dëkk bi la métti ma na ñëpp daal waaye ñu ngi sant nag yàlla maanaam mu doon moo ndoog moo xamante mu gën ci yow yéeg bi askalal maanaam jóge yéegi jigéen bi askalal maanaam yàlla yàlla may ndam ci li bëgg ñu fekk nu ñëpp nag ñu bokk ko barke Xaadimu Rasuul sant nañ baax maanaam ay dong moom loolu li waay defal yàlla nga ko defal ndax maanaam ñoom ñoo wut yàlla wacc seen day wacc seen baay maanaam fii di wut yàlla kon kooku loo ko defal yàlla nga ko defal te jëf nag li ci baax moom jëfal suñu borom waaw boo ma jëf boo ko may defalee benn ma fay la fukk soo ma lee fukk ma fay la téeméer yàlla na ko yàlla yàggal daal ci barke Xaadimu Rasuul cant ngërëm bismillahi rahmaani rahim waladi waxaa fi maali baladi aritu nafsi wa diini wa ahli wa maali bil hayyil qayyum la yamut abadan hmm. wa dafat ankum soo bi alfi alfi la hawla wala quwwata waat ci jàmm ah, sant rek alhamdulilah macha allah wax dëgg yàlla di leen sant bu baax liggéey bi rafet na trop fu mu toll nii loolu la wax ñun wax dëgg yàlla ñëpp a ngi leen ñaanal waa dëkk bi ñu ñaan ci barke Sëñ Tuubaa alxuraan ak xasiide li ngeen liggéey suñ borom fay leen ko ngeen yàgg fi te wér te am xéewal ndax fu ma toll barki démb ci mujj maa ngi koy garab yi garab yaa ngi garab yaa ngi nii yaa ngi ak leneen ba ci koor geeg fu ñu toll seen teraanga yi ñu fi daan ñu ngi koy wax waaw moo tax sant nañ leen bu baax daal di rafetlu taxawaay bi daal ma mënewun wax nag moom waaye sant rek da alxuraan wax lu ngeen sant ma dool leen kon sant rek donga yi ñu leen di ñaanal bu baax a baax a baax a baax waaw yal na suñu borom yàggal leen fi te wéral leen fi barke Seexul wax dëgg yàlla de moom sant nañ leen sant goo xam ne moom am na tàmbaliwaay amatu yamukaay waaw lu am solo ngeen def ndax dañoo toll ci jamonoom alxuraan yéen fu ngeen toll da ngeen di dimbali daara di dimbali te loolu moom mooy lépp waxtu ne dama ci waxtaan sëñ daam mi ah, di leen sant ndax wax dëgg yàlla danoo gis euh, tout tànk yi fu mu toll ngeen leen di jox ay yére di leen ay balu fëgg jaay di leen toggal ay ndog te loolu dañ koo war a wax fësal ko waaw moo tax daal ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaw comme ni ñu ko waxee wax dëgg yàlla mënewun wax nag moom waaye wax dëgg yàlla sant nañ leen di ñaan barke alxaan topp leen ak barke borom dëkk bi suuf si lu waaye def de boppam la ko def te lépp nitu alxuraan lépp lu ko waaye defar rek sa bopp nga ko defar waaw ñu ñaar fan nu gudd lool te wér suñ suñu borom yokk xéewal gi it ba lii ngeen lu ngeen man ren bu déwénee ngeen man lu ko barke sëñ Tuubaa barke sëñ maam jërëjëf auzu billaahi mina shaytaani rajiim laa hawla wa laa quwwata illaa billaah allahu la ilaha illa allah wa sallam wa sallam fi sanatana nasrun min allahi wa fatahun qarib ñi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaare bu baax di leen jaajëfal itam bu baax a baax seen taxawaay wax yàlla ñi ngi rafetlu bu baax taxawaay bi li ngeen def itam moom yàlla ngeen koy defal léegi def yàlla ngeen koy defal te yàlla xam nañ ni itam yàlla rek tax ngeen di jëf ndax ñun amul amul amuluñ leen benn intérêt <laughs> ci saaxir bokk xanaa xëy na ci baatin waaye ci saaxir moom amuluñ leen benn intérêt boo xam ne war naa mën a tax ngeen bàyyi seen yitte dajale seenu ñaq yi itam ñëw fekk ñu fii dañu ko jox xam nañ ne comme li ngeen yëkkati di ko joxe maam liggéey gi ñuy liggéey ci alxuraan moo moo waral ngeen dajale seenu ñaq ñëw dañu ko jox ñun itam eh, bu ngeen ñu ko joxee itam du génnaat dara ci lépp ci loo ngay leen loot waaw te li yàgg ngeen ko def mi ngi bëgg a man yaakaar naa rek daara ji ma ko sancee rek mën na fukki at te yaakaar naa boobaak léegi maa ne nemmi ko at mu jot da ngeen def lu mel kon lii lu am solo la eh, ñu leen ci ñaanal nag ñaan yoo xam ne ci suma lañ koy tibbee fépp fu ngeen bëgg a àgg rek su borom àggal leen ci zahir ak ci baatin na waaw bay ci yéen kenn ku nekk rek li bëgg ci ab xolam ne moom moom lay fu mu toll moom lay xaar di ko ñaan di ko yóotu di ko sàkku jamono ji yan na ko suñu borom defal waaw te te nam gën a rafet ak nam ko gën a bëggee waaw suñu xol daal sedd na lool lool lool lool lool waaw nag yal leen yàlla musal ci am ndog musal leen ci ay pakk ay musiba musal leen ci mboolem rek luy gàllankoor ak gone ndax moom ku koy ñaanal na nga ko ñaanal it mucc ci am ndog ndog yi bari na te itam jamono ji yàqu na itam toll tolluwaay bi itam ñëpp xam nañ ko waaw léeg yoon di dox ba yaakaar ne yaa na rek dara jaar waaye nag yooyu yëpp yàlla nañu yàlla doon koy dégg rek waaw yàlla nañu daal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 amiin yaa rabbal aalamiin bismillahi rahmaani rahim audu billahi min asheytaani rajim wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadin makin wa ala alihi wa sahbi ajmain ñoo ngi leen di nuyu baax di leen ziara di baax uh, mbooloo mi ñëpp ci liggéey bi nga xam ne moom daanaka miin nañ ko ci yéen yàgg yàgg ngeen ko def muy liggéey boo xam ne yéen ko jëmale ci daara yi ak sëriñu daara yi ak dimbali daara yi muy liggéey boo xam ni liñ ko yàggee wax rek liggéey a ko solo daal liggéey gën a koo gën mën a koo gën a kaw tamit waaw loolu moom moo fi bàyyi woon mag ñu baax ñi moo fi bàyyi woon sëriñ bi yaakaar kaw ni kaw ni qaadima rasuli wal kitab fadlan fadlan min al wahabi la min iktisab ne woon na sama nekk mooy di liggéeykatu sallallahu alayhi wa sallam waaye di liggéeykatu alquran dañ ne loolu nga ñëw lu yàlla la waaye nee na du du du du sama fàgguteef waaw fadlan min al wahabi la min iktisab du loo xam ne maa ko fàggu sama kon loolu day jëf ju am am solo muy liggéey alxuraan alxuraan nag doon lu amuk pay lool ndax lu ko waaye defar yàlla nga ko defal waaw liggéey mënu ko féete kaw waaw te mooy solution bi nga xam ne nag ci la ñu mën a jàpp teg sunu njaboot ba mën a mucc ndax dañuy wax ni bi aayab yaa ayyuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran ba ni mu jeexee bi mu wàccee Seydina Omar radiallahu taala anhu dafa a sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaa rasulallahi naqi anfusana fa kayfa bi ahlina ñun ni ñu def ni def ba mucc ci sawar de xam nañ ko waaye nan lañ nan lañ ci mën a musalee suñu njaboot sallallahu alayhi wa sallam ne ko tanhawnahum amma nahakum allahu anhu wa ta'murunahum bima amarakum allahu bihi deen aaye leen alquran tere mu leen leen yàlla tere te leen di digal leen yàlla digal kon nag li li ñu yàlla digal mooy téere bi li mu bëgg lépp ci la ko def lim ñu aaye tey mooy téere bi li mu bañ lépp ci la ko def kon solution bi defar àddina ak ci defar àllaxira lépp mi ngi ci téere bi kon téere bi ku ci nekk ci yëngu rek kon jàppal ne yaa ngi yëngu ci li nga xam ni moo dajale mboolem luy yiw moo dajale mboolem lu baax kon liggéey gi gi ngeen ci liggéey tamit dañ ci soññ suñu bopp bu baax rek ñu jiital ci yéene ci yéene ju kawe kawe kawe ndax lu ci waay yéene rek man mën na koo am ba am ci soxlu kawe njortu waaw nit ñi raw ñëpp daa ci lañ rawee bu alxuraan waaw lu waay lu waay defal yàlla tamit faaw nga fonkale ko téeréem bii sunu borom fonk la waaw moom ci boppam am nag pay ndax ñi daan yëngu ci alxuraan rek ci njaareem sëñ Tuubaa daan leen neexal yor yor leen jëmmam mu jig alxuraan dañu ko génnal sama diggante ak ñoom bàyyi ma ak ñoom ak alxuraan fi mu doon sax nangul sax ngay ngay ja ngay ngay mel ne lu lu war a lu war a taxaw waayam wala waayam yow yaa a defal li mu bëgg moom daa jàpp ni ku yëngu ci moom rek te loolu moo am lépp loo bëgg mënal na la ko kon lépp li ngeen bëgg naka la xira rek liggéey bi mënal na leen kon yàlla na ko yàlla gën a sàmm rek waaw yàlla gën leen ci xiirtal te lépp sell tamit te yalla nangu lépp ngeen amee ci lu kawe njort loo xam ni mbooleem mbokk yeeg jullit ñëpp ñëpp dañ ci xaj waaw wax dëgg yàlla ñoo ngi bég lool waaw te buñ sañoon tamit ngeen fekk ñu ci bërëb ba mu gën a taaru lool waaye nag fii moom ak fële daanaka <laughs> <laughs> waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf amiin amiin eh, amiin rek Seex Xaadim amiin amiin jërëjëf wa taqdinaa bi ajmil haajaat wa tutahhirunaa bihaa min sayyi'aat wa tarfa'unaa bihaa 'indaa darajaatil darajaat wa tuballighunaa bihaa salawaati bi jamiil hayaati fil hayaati wa badan mawti sallallaahu 'alaa Muhammad tawfeex ju rëy ji ñaan suñu borom mu defal leen tawfeex ak barke ak ndimbal mboolem yàlla barkeel ko fi ne am na solo lool te yittewoo nañ ko lool wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla ñu ngi leen ci sant bu baax a baax dem ba xam ne kenn ku nekk kenn kenn rek ci mboolem daana ko man waaw yàlla ubbi leen ay buntu xéwal yu rëy rey rëy buntu xéwal yu yaatoo yaat yaatu yaatu dëgg yàlla yéen ngi jàpp ci liggéey bu baax a baax ndax lii day tax nu mën a toog <laughs> ndax euh, lu baax moom ku ci nekk boo ca góorgóorlu mu néew néew néew boo gisee ñu la ci dimbale rek day tax maanaam nga gën a góorgóorlu ba doo xool leneen li ngeen def na wax dëgg yàlla ba ngeen ko tàmm léegi léegi bàyyiwu leen ko te euh, leen sant yi ñëpp daal waaw suñu baar moom xam la waaye léeg-léeg waaw kii man la naa bàyyi naa bàyyi noonu rek bañ koo <laughs> eh, moo tax waaw ah, barikàlla yàlla dafa leen tawfiq alhamdulilah sant nañu baax a baax waaw waaw nga yaat ma gaa yi kay yéen kay waaw ndeysaan waaw ñëpp rek liggéey bi kay liggéey bi kay moom liggéey bi moom koy wax di yàlla lu ci waay dërëm sax bu ko waay def wala ko ànd na yéen sax nga xam ne jàpp ci daal du daa ànd na yéen rek ñëw jàpp ci bagage yi wàcce rek teya ba ci kenn xamu nu toll yàlla na yàlla fay leen daal daraje seen Tuubaa ubbil leen ay bunti xewel yu rëy rëy rëy yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo sant nañu baax kontaan nañu lool wax dëgg yàlla li ngeen fi indi woon doyoon na alxaan ji rek tabaarkalla sant nañu bu baax a baax a baax. alhamdulilah dafa nit moom ñu. Mhm. ndaw yi mhm. nekk ci biti. Mhm. ay nekk ci dëkk a ñu jóge ah wala Yacine ah, dëgg la ak sunu waxkat bi ne moo dàqoon na joxe. Hmm. te moo fi tabax pale. wala Yacine dëgg la joxe tabaxuñ pale. waaw dëgg la de waaw waaw jërëjëf sant nañu baax a baax. ah bisimilah. jërëjëf.